di santaat uh, Serigne Touba ci dimbali gim ñu dimbaliwaat ba ñu ñëwaat fii ci Touba uh, defaat li nga xamante ni loolu lañ daan def at mu jot uh, maa ngi ànd ak délégation Auchan ñëwaat ak ñoom feddali li nga xamante ni at mu jot màggal bu jubee moom la ñu doon def maanaam andi euh, lépp loo xamante ni euh, jëf la jëm ci màggal gi waaw di ñaanal mun taxa Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaw muy mel ni euh, tey recevoir nañu dalal ñu dal gu neex waaw ñaanal ñu ñaanam yu tedd yooyu noonee mu ko daan def at mu jot. waaw ñu ci sant bu baax a baax a baax a baax a baax. di santaat aussi di ñaanal sunu kilifa yi nga xamante ne moo ñu fi ñoo ñu fi yebal. ndax euh, ñun moom dañu tàbb ci leen lu dul ndigal waaw te tey sëñ bi bu ñu joxoon ndigal nañu euh, Auchan war nañ ko fi war na fi amee moom incha allah dana am te sunu yéene mooy Auchan fexe ba euh, saw ci biir Sénégal waaw ndax tey booy xool ñu ngi ci 33 magasins ñu ngi Thiès ñu ngi Ndakaaru ñu ngi mbuur Euh, bientôt Saint-Louis Tivaouane daanika daal ñu ngi tas ci biir Sénégal te yéene bi mooy fexe ba Auchan am fépp rawatina fii Touba ndax lépp luy baax Touba ci war a jiitu waaw te Auchan moom day lu baax di luy dimbali sénégalais yi ci maanaam ay njëg yu yomb ci euh, maanaam euh, dund goo xamante ni gu sell lépp luñ fay jaay ñu mën ko di ko jëfandikoo. waaw muy mel ni nag ren li nga xamante ni moom lañ fi andi. comme daaw rek andi nañ ceeb andi nañ diw andi nañu suukar andi nañu euh, ay jus andi nañu ndox andi nañu gel ndax euh, gel yi moom mënut a ñàkk ndax faw ñu dëpp contexte bi parce que bi li mu laaj sëñ mu taxaw jox ndigal mooy ñëpp di takk masque waaw gannaaw tey di raxas seen i loxo di raxas ko ak gel antiseptique ndax li ñaan mooy lii di mbas mi sunu borom jëlee ko fi. waaw te euh, loolu yaakaar naa ni moom ñëpp bu ñu dëkk euh, sàmmoog li nga xamante ni mooy geste barrière yi maanaam incha allah dina fa jógee waaw moom daal noonu la demee ren bég nañu lool sant nañu bu baax a baax a baax a baax a baax ci sunu ñëw fii ci Touba. ànd koog sëñ Bass Abdou Khadre di ko ñaanal moom it mu yàgg fi lool te ànd ak wér taxawaayam rafet na nim ñu taxawoo gis nañ ko rafet nañ ñu ngi koy sant di ko gërëm aussi waaw di sant aussi sunu kilifa di Laurent Leclerc. ndax moom confiance bi mu jël jox ñu di ñu yebal ci lu nu mel kooku li la war mooy saa su ne di ko sant ci confiance boobu mu la jox waaw te ñuy ñaan moom yéene bi mu am ngir yóbbu Auchan yéene boobu sunu borom fekk ko ci ndax li mu bëgg mooy Auchan saw fépp ci Sénégal sénégal yi gis seen bopp mu doon seen yëf di son yëfu bopp. ci turu Serigne Bassirou moom Cheikh Abdoul Khadir di leen sant bu baax di leen gërëm. di ñaan suñu borom sëñ sëñ mu Mountakha su mborom yàggal ko fi lool te maa ko wér yàggal fi mboolem njabootu Serigne Touba ak yëpp su borom saxal leen fi te ànd ak ku wér ci barkeb Serigne Touba waaw li waral kàddu yi nag mooy dafa am ay mbokki taalibe yu fi dikkoon di andi seen jëf ci màggal gi Serigne bi boole maa ñoom ñu dem ci Serigne Mouhamadou taxa jëbal ko seen jëf muy waa Ousan bii mooy ñetteel bi yoon ñu ko fi andi at mu jot danañ jël ab 30 tonnes. bu mag sarse ko ba mu fees dell ak xéewal di ceeb ak suukar ak diwlin ak ay zel indil ko Cheikh Mouhamadul Mountakha bu ñu agsee nag sëriñ bi daf may boole ñoom leen dem leen ba ci mu Mouhamadul Mountakha ñu teg lépp ci loxoom. di sant bu baax waa Auchan di leen gërëm di ñaan suñu borom lii ñu fi indi suñu borom dolli seen i xéewal ak seenu man taalibe yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom di fi indi jëf ji suñu borom yokku leen bu baax. ba li sas Ousseyn lañ la tax lañ am ñoom ñu ñu am li ñu toll mbaa ñoom lu ko ëpp ndongo yi sëñ Bàmba yi lu waay am rek ñoo ci gën a kon ñoo ngi di ñaanal suñu borom nangu jëf ji te barkeel ko ci barkeb sëñ Tuubaa ngeen yàgg ko fi yéen te yàgg fee fekk sëriñ bi sëriñ bi bég na lool sëñ Basiru moom Cheikh Abdoul Khadir bég na ci yéen lool waxtu wu ne màggal gi yéen moom yéen a koy ànd. Mhm. jëf ji ngeen ciy jëf sant na ci bu baax xolam sedd na guyu ci yéen. Mhm. ñu ngi leen di ñaanal di ñaanal seen kilifa ko ak mboolem ñi koy jàppale ñëpp ak mboolem taalibe yi fa nekk yépp suñu borom dimbale leen yokk seen i ba fi ngeen bëgg àgg fépp ñu àgg fa ci barkeb Serigne Touba.